amoon yéene def ko xew-xew boo xamante ni askanu Sénégal ñi fare ci réew mi ak ñi fare ci biti réew fa yéene ànd ak euh, ñi nga xam ne ñoo di les leaders de la coalition ngir jëmmal loolu mu naroon nekk xew-xew bu am solo mu nekkoon naroon nekk un événement populaire ndax comme niñ ko yàgg a waxee président Ousmane Sonko moo di candidat wu askan wi li ñu ci namoon mooy askan wi euh, tabbal ko boppam def investiture bi investir ko moom en tant que candidat waaye nag yàlla dogalul loolu antu ci coobareem waaye itam ci taxawaayu euh, ñi nga xam ne ñooñu lañu ñu jàkkaar lool ndax yaakaar naa euh, biñ ko jàppee ba biral ko que ni le trent bi woon euh, samedi dañ ko naroon amal ci terrain pes ñu interdire ko ndax du lu ñu lu bees lu ñu tàmm di gis la que depuis ay weer lépp lu ñu nar a amal muy daje walla xew-xew ci réew mi euh, amal ko ci tour président Ousmane Sonko day nekk loo xamante ni dañ koy dakkal ndax yaakaar naa kenn dootul miim li nga xam ni moo di euh, jaay doole gi am ci réew mi waaye loolu duñu tënk di ñu téye bi ñu jugee ci loolu ñun ay républicain lañ Euh, jàmm la ñu bëgg jàmm la ñuy dox jàmm la yéene réew mi li ñu naroon terrain ak APES ñu xañ ko ñu ne nag du ñu bàyyi ndax suñu wareef la ñu tabb suñu candidat kom ni ko ñeneen ñëpp defee ci loolu ñu décidé woon que comme mënuñoo dem terrain ak APES dañuy dem fi nga xam ni moo di saalu Fun City ñu mën ko amal foofu dajale maanaam euh, nit ñi ci ñi fa war a mën a teew ngir ñu mën a amal cérémonie bi waaye taxul itam ñi ñu jàkkaar lool seen xol mënta nangu loolu ko ba tax na ba ñuy wàcc pour nit ñi ñëw ñu dalal leen ñu tàmbali liggéey bi ci lañ fay yónnee ay takk der ñu ne nit ñi nañu génn salle bi ñu tëj salle bi looloo tax jotuñu ko amal foofu waaye taxul ñu banque suñu loxo ndax dafa am loo xamante ni niñ ko waxee dañ ko warlook moom askan wi da ko warloog moom moo tax ñu bëgg ñëw tey jëmmal ko pour sénégalais yépp gis ko moo xam yaa ngi ci réew mi wala bitti réew pour wan leen ni ñoom am nañ seen kàttan waaye ñun tamit am nañ suñu dogu ak suñu pas-pas ci ni lépp lu ñu war a def mu jëm ci euh, le président Ousmane Sonko mii di candidat bi lu ñuy amal la ndax gis nañ taxawaay bi nga xam ni am nañ ko ci dossier de candidature am waaye xarañte ay avocat xarañte ak ñi nga xam ne ñoom la sekkat di liggéey fexe nañ ba dossier de candidature am tey jii fi ñuy wax ak yéen mu ngi ci biir conseil constitutionnel mu nekk lu ñu war a saytu donc loolu moo ñu tax a daje fii tey xam na ah, ñi nga xam ne ñoo ngi sekk coalition bi ñu ngi toog incha allah lu ñuy continuer la ñu leen di limal rek béral leen li nga xam ne moom la ñu fas yéene def pour ngeen xam ko moo di dinañ wax ci ki nga xam ne moo di candidat bi. ndax day baax ñuy fàttali askanu Sénégal kan mooy président Ousmane Sonko taxawaayam ak yéeneem ci réew mi bu ñu ci jógee dina am benn euh, vidéo boo xamante ni dañ ciy ñëw ngir feeñalaat taxawaayam ak jaay jaaram donte ni bari na mënuñoo feeñal lépp waaye dina am luñ ci jukki te jox leen ko bu ñu jógee ci loolu dinañ biral kàddu yi nga xam ni mooy kàddu yi ko war a tabb en tant que candidat de la coalition dinañ ci ñëw ci wàllu wolof dinañ ci ñëw ci wàllu français dinañ ci ñëw tamit ci wàllu anglais ndax suñu mbokk yi fare biti réew te dégguñu nasaraan wala anglais la ñuy wax pour ñu mën ko dégg bu ñu paree ci loolu nag dinañ ko tëj ak li nga xam ni moo di message am euh, ak li nga xam ni moom la ñu fas yéene doxal ci fan yi di ñëw ndax naruñoo banque suñuy loxo incha allah niñ ko yàgg a waxee candidature am demande sociale la te dinañ fexe suñu kéem kattan. ba mu nekk loo xam te dina antu ci kàttanu borom bi suñu noppee nag dinañ woo kenn ku ci nekk ci leader yi nga xam ne ñoo fi teew te ngànk coalition bi ñu jox leen raay gi nga xam ne mooy màndargal seen bokk ci coalition Sonko président 2024. donc euh, ni ñuy def rek mooy woo ki nga xam ni moo di euh, docteur Sall moom mi nga xam ni nekk na jege ñaale ci président Ousmane Sonko ñu ànd. ci liggéey politique ci lu yaatu mu nekk nit koo xamante ni xam na ko mën na wax lu bari ci moom comme ni ko ñeneen ñu bari waxee waaye moom tànn gi ñu ko tànn dafa am lu muy jëmmal ci moom incha allah mu ñëw fii wax leen biral leen euh, bokk ak yéen euh, kàddu yi muy feeñal mu jëm ci président Ousmane Sonko. Euh, salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ci daje bi. Euh, li ko waral nag mooy euh, dañu nekk ci lu am solo loo xam ne ëllëgu Sénégal euh, moo ci nekk muy loo xam ne ëllëg ci histoire suñuy doom yi suñuy sët yi dinañu bëgg xam ban taxawaay lañ ci am bu ñu waxee élection dañuy wax ki ñu war a tànn naka la war a mel lan moo war a nekk jikkoom ngir mission bi ñu ko fas yéene dénk mu mën ko taxawoo kon day baax ñu dellu si tuuti ci loolu bala ñuy ñëw nag ci ki nga xam ne moo ñu fi taxa daje tey euh, jàpp naa ne président de la république bi nga xam ne moo nekk ci ay mbaggam nekkul ci mbaggu benn citoyen même su fekkee citoyen ñoo yem ndax liñ ko dénk dafa rëy signature am lu màgg la. lu mën ay ay changement mën na defar mën na yàq moo tax dañ ko war a saytu euh, saytu boobu nag mu ngi tegu ci ay jikko yoo xam ne daf ko war a làmboo jikko yi mën na ci site jub jubal mën na ci site xam-xam mën na ci site fit mën na ci citer. Euh, bëgg sa réew waaye nangoo jox sa bopp sa réew ak yeneen yeneen yeneen su ko defee bu ñu nattee loolu ñu xool naka lañ koy yéeme ci Ousmane Sonko ba xam ndax moom mbàggam yi diis na pour mën a téye Sénégal wala déet te ñu teg ko ci kaw li ñu xam ci moom te yàlla tax tax ñu yox lu jëm ci jub yaakaar naa Sénégal yi bu ñu doon def sondage tey di wax kan mooy Ousmane Sonko ñu natt ko ci njubam. yaakaar naa kenn du werante même ñi nga xam ne d'accord ñu ak moom di ko waxee guddeeg bëcc sax d'accord nañu ki ko jubla défi bi mu lancé pendant ay at ci képp ku mës a gis jël naa dërëm bu ma moomul foo ma di nekk wax ko génne ko moom ba léegi télé nañ pour génne ko xam nga su fekkee dem nañ ba nga xamante ni ñi seex ak ñi ànd ak ñi nga xam ne dañ jàkkaarloo ak moom dem bay fent ay mbir di ko teg ci deram ba justifié wam nga bitiku setal ko bu ñu amoon benn pexe lu mu tuuti tuuti ci loo xam ne dëgg la ci moom lu jubul xam nga ni kon waxuñu ko loolu rek doy na pour wane ne kii ku jub la te njub solo bu rëy la am ci jiite réew njub ci sa bopp yow par rapport ak loi yi nga xam ne mooy encadrer sa marche en tant que président de la République waaye jub également ci yebale ñëpp xam nga loolu bu ñu ko waxee tey nag xam naa sénégalais bu ne dina am njaqare ndax ñàkk yemale gi ñu fëse ci Sénégal ginnaaw loolu xam-xam xam-xam lépp luy dox te war a baax xam-xam moo ko moo ko tënk rawati nag am réew nga xam ne comme ni ma ko waxee sànq benn décision boo ci mën di jël impact bi kenn xam fan la mën a yem moo tax ba xam-xam ci Ousmane Sonko yaakaar naa lu neex a comprendre la xaarul ba nekk président pour bind ay livre ñett bind na ko buñ jëlee bi jëm ci pétrole loolu li mu symboliser mooy fas yéene gi mu am fas yéene gérer ressources yi nga xam ne Sénégal am na ko mu jaar ci yoon te loolu lu fondamental la parce que loolu mooy tax nga am ay ressources au-delà de conception bi ngay def ci Sénégal fan la war a jaar soppeeku nga am ay ressources yoo ko mën defee loolu benn màndarga la ñaareel bi mooy Euh, bind na également ci décentralisation même fekk ko ko ko auteur la ci di wane également lan moo tax suñu gox-goxaan yi malgré 60 ans d'existence ñu ko ne dindool ba léegi ñu bind ci pour wane ne am na ay yoon yoo xam ne buñ ko jaaree war nañ cee mën génn te boobu ba léegi aussi gisoo kenn koo porter la contradiction ci li nga xam ne moom lañ proposé foofu waaye aussi bind na loo xam ne moo ëpp lépp moo ëmb lépp mooy libre solution di wane également naka lañu war a def ba Sénégal génn ci guddi gi mu nekk comme ni ma waxee sànq na su fekkoon dafa yem rek ci def ay proposition dañ naan ñëpp def nañ ko waaye li jafe mooy def ay proposition wane moo mooy yi ma soxla pour mën koo jëmmal loolu la def loolu mooy jëm ci xam-xam ma ndax soon ko bëgg na Sénégal ah bëgg Sénégal mën naa weesu dem ba sa bakkan di xaj ci mbir Sénégal ba ñu naan dina ci génn du ci génn ci loo xamante ni amoon na yenn sañ-sañ yoo xam ne bu ko defoon tey kenn waxati comme ñeneen ñu def rek kon Ousmane Sonko bëgg réewam jaral na ko ba bakkanam des ci te wane na ko ndax Ousmane Sonko am na fit fit dafa am solo ci njiit parce que di nga toll foo xamante ni say décision enjeu bi mu am soo amul fit ngir sa askan doo ko mën a def ku ne xam ne ni Ousmane sonk li mu daj depuis loolu ba léegi ku amul woon fit dellu na ginnaaw yàgg na. kon jàmbaar la alors lii yëpp nag su dajee moo ne ne kon ñun ki ñu tax a toog fii au-delà de jëmmam muy Sénégal leer na ne attan na li nga xam ne moo lañ ko bëgg a loolu moo tax d'ailleurs Sénégal yëpp riir jëme ci moom pour ne kii lañu bëgg mu jiite ñu ñu ngi leen koo xaj kon mbokk yi loolu yëpp nag soo gisee ci ko Ousmane Sonko man li ma xam ci moom gis nga en en 2017 bi ñuy def campagne ñu dem Saint-Louis ñu ngi fa egg autour de entre trois heures 30 du matin et 4 heures du matin heure prière bi c'était à c'était à 5 heures demi 6 heures une heure temps la ñu nelaw Ousmane Sonko jóg jàpp dem julli loolu ko amul doog doo ko def jàpp naa ne nag jikko yi ñuy wax ci moom maanaam ñàkk jël alal jàmbur bëgg sa réew mu jaral la ak yeneen ak yenn yi ma ci fi tudd léegi làmbaay bi mooy gëm gum gëm ne lii jaamu yàlla la wax da koy bari di wax ngeen koy dégg te muy dëgg amul lu gën a foor def sa kattan sa xalaat sa lëpp pour que sa askan mën soppeeku jóge ci situation bu jafe dem situation bu tane loolu jaamu yàlla bu rëy rëy la xam na ko gëm na ko ci loolu la nekk aussi kon mbokk yi Ousmane Sonko wax dëgg yàlla suñu waxalee yàlla rek tax te parparloo taxul jëmmum ji du moo tax li mu làmboo te mu am njariñ Sénégal loolu moo tax ñuy wax moo tax ñuy woo nit ñi leen xamal lañu gën a gëstu te bés bu tànn jotee nañu seet li ñuy tànn nit du lor boppam lor sa bopp mooy tànn jot au lieu nga seet sa diggante ak li nga xamante ni moo la jëmale kanam ay yeneen yu la détourné la ba nga jëf ba nga def leen loo xamante ni du sa njariñ moo ci nekk loolu gënul Ousmane Sonko daal wax yàlla moom nañu toog di wax ci moom lu bëree bëree bëri damay joxe benn anecdote en 2017 toujours bi ñu commencé campagne bi dem nañu comme ni ma ko waxee sànq ba Saint-Louis après ñu dellu fa Dakar wala yëpp wala dem au sud ñu toog di añ benn jour mu ne ma docteur Sall di dégg naa da nga tawat yaa ngi koy nëbbu di forcé boobu maa ngi toog ak joomaay ñu ngi ko waxee dama tiit ma ne kii fan la xamee lii parce que boobu j'ai une programmation d'opération mu ne ma nag il faut nga arrêté. sa xeet sa xol sa xol yëpp mu ngi ci affaire bi loolu moo lay humanisme waa ji donc c'est-à-dire moom du koy ñëwee rek mbir ci boppam day xool entourage bi est-ce que li ñuy defal ni am na njëriñ lan mooy seen xalaat ci li ñuy def il se préoccupe de soo gisee jeunesse bi topp ko loolu ci la bokk nit la nit la loolu rek doy na nit la loolu rek doy na bëgg na Sénégal xam naa du ma guddal parce que am na ñenn ñu war a intervenir mais daal li ma mën a wax mooy ci lu gàtt. Ousmane ko mbaax laa ko xamee te li may wax nii yàlla laa ko seedeel maa ngi leen gërëm ñoo ngeen jëf. waaw euh, jërëjëf euh, docteur Mohamed Sall euh, kàddu yi mu yëkkati jëmale ko ci président Ousmane Sonko mu nekk kàddu yu am solo ndax ñëw na pour xamal ñu ko ci ay baat yu gàtt. mu di président Ousmane Sonko boo ko tuddee di nga tudd intégrité mooy njub di nga tudd xam-xam te mooy compétence di nga tudd patriotisme ndax mooy bëgg sa réew ba mu jaral la nga sacrifier lu bari ci sa dund tudd na itam courage fit gi mu am ci euh, liggéey gi muy liggéey waaye tëje ko lii di ngëm mu nekk yu am solo muy développer ay valeur rawatina li mu feeñal ci anecdote bi di humanisme donc euh, ci loolu la mënoon jukki ak keneen ak keneen koo xamante ni yàgg nga sëkk ak moom ñii di ay ancien collègue ñii di ay nit yu mu sëkkal ci wàllu àdduna waaye ku ci nekk rek am nga loo mën a wax ci moom donc di ko remercier bu baax a baax ci ci ci kàddu yi donc kàddu yooyu euh, dañ ciy njëkk woo ki nga xam ni mooy suñu frère euh, El Hadj Malick Ndiaye mu ñëw biral kàddu yooyu ci kàllaama wolof suñ ci noppee dinañ ko biral ci nasaraan ak anglais ngir àdduna bi yépp xam li nga xam ni moom lañuy euh, amal tey donc di woo El Malick ngir mu ñëw biral kàddu yooyu salaamaaleykum mbooloo mi mbégte mu rëy lañu am teew fii tey ngir becc leen kàddu yu néew ci lii nga xam ne ñi bokk coalition Sonko président ñoo ko dëxëñ ngir tabb kii di président Ousmane Sonko mu doon seen candidat waaye comme ñoom moomuñu ko ñoom rekk waaye mu doon tamit candidat askan wi comme ni ko euh, use nu waxee gis ngeen ne bi ñu annoncé datu le 30 bi ba léegi li ci jot a xew yépp euh, waaye ñëpp xam nañ ne président Ousmane Sonko niveau de résilience am ak résistance am daf ko mujj tuuf wala wàll ñi nga xam ne moom lañ àndal ba tax na euh, lépp loo ñu yaakaar ne dinañ ko def pour xaññu ko dinañ ko soppi ba nga xam ne maanaam euh, faiblesse boobu day mujje nekk force moo tax mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen fi teew waaye mbokk askanu Sénégal waaye mbokk aji bëgg réew yi ñu leen di wax lee patriotes ñun waa coalition Sonko président dañu am mbégte ak yëg-yëg bu mag ngir tab kii di Ousmane Sonko mu doon candidat coalition Sonko président ci jongante yi ñu dëkk natt nañu bu baax nag dayo bi nga xam ne lii moom la am ak li muy màndargaal ci askanu Sénégal waaye tamit tegoo nañu ko ci suñuy mbagg wane ne kii nga xam ne mooy président Ousmane Sonko di panafricain ñëpp xam nañ ni mu mel ci Afrique ndax dimension weesu na Sénégal mën naa ne weesu na Afrique te tey ku gis dimension bi dayoom moom fi mu toll ak candidature fi mu yegg ci àdduna bi xëy na kenn lañ ko ci mën a méngalee koo xam ne yeggoon na foofu mii Barack Obama mu nekk patriote convaincu maanaam aji bëgg réew bu mat sëkk waaye mu nekk ki nga xam ne mooy mandargaal Afrique gi nga xam ne dañ ko nalawal bu yàgg te Afrique googu yeewu fas naa jël ëllëgam téye ko dox jëm ca kanam bokk ci continent yi ñu gën a naw yi gën a ñoŋ ci àdduna bi kooku may bëgg a wax mooy le kandidaa Ousmane Sonko ñi ko gën a jege di ko wooyee PROS kon nag ñun ci fidélité honnêteté sincérité ak loyauté moo tax tey ñu jàpp ne xeex bii ñuy xeex ngir Sénégal doon senegaal gu jóg senegaal gu gën senegaal gu ñoŋ senegaal gu raw ay maasam doon na xeex boo xam ne mënu ci dellu ginnaaw benn yoon te mënuñu ci yox-yoxi a ah, xeex boobu nag suñu koy def suñu xel mënul ñàkk dem ci ñi nga xam ne seen bakkan dafa rot ci yoon wi ndax ba ñu ko tàmbalee ba léegi te ñoom Mariama saañaa ba fii ñu yegg si tey la ci rot ëpp na juróom benn fukki nit ñi ci événement mars 2021 ñii ci événement juin ak euh, ak ak ak événement euh, juin 2022 ak événement juin 2023 ah ñooñu nag dañuy xalaat seen ay njaboot seeni wayjur seeni soxna seeni rakk waaye di leen biral ne duñu leen mës a fàtte te xeex boobu ñu doon xeex ba loolu fekk leen ci nañ gëm ne ñun dinañ ko wéyal ba am ci ndam ngir Sénégal doon Sénégalu dëgg ngir Sénégal doon Sénégal goo xam ne li ñëpp bokk ñëpp jot suñu xel mënul ñàkk dem ci lu ëpp junni nit yi nga xam ne dañ leen a nëbb jant bi ñu nekk ci kaso yi nga xam ne nguur gi moo leen fa dugal ci ak jaay doole waaye ci gëm gu ñu gëm seen réew gëm ko benn projet te ñooñu ñu mën cee lim kii nga xam ne moom la ñuy tabb tey muy suñu candidat di président Ousmane Sonko ak mboolem ñi mu àndal a ah, wax fa dëgg yàlla nag li nga xam ne fas yéene nañ koo def mooy génne Sénégal ci guuta gi mu nekk waaye génne Sénégal ci loxo yi ko ŋànk ruut ko ci suuf ji ngir bañ mu jëm kanam ñoo xam ne seen intérêt képp moo leen fi nekkal ba tax nañu tabb seen benn candidat boo xamante ne nii dañ cee bëgg jaar forcé wéy ngir di noot sénégalais yi ngir confisquer votu sénégalais yi maanaam ngir nangu bëgg-bëggu sénégalais yi nga xam ne dañoo bëgg a tànn kenn koo xam ne jàpp nañ ne bu ñëwee moom mooy delloowaat Sénégal maanaam li wax jot sa réew mooy tax nit ñi jotaat seen réew mooy tax nit ñi mën a jot ci li ñëpp bokk loolu nag euh, bu ñu koy def ba tax ñi tabb suñu kandidaa bi dañu koy wéer ci li nga xamante ne nii mooy constitution wu Sénégal mii nday sart réew mi nga xam ne moo tënk lépp ndax constitution boobu ci poñam bi ñuy wax 4 ak 29 maanaam article 4 ak article 29 euh, ak L 120 bu constitution bi ak L 121 bu code électoral bi moom moo wax naka la ñuy tabbee candidat te ñun ñu tànn ci bi nga xam ne coalition bu ëmb mbootaay gu ëmb ay kuréelu politique ñoom ñoo koy tabb ngir mën a nekk président de la république ah waaye yamu ñu ci loolu parce que dañu jàpp ne président bi dafa war a nekk ku légitime maanaam dafa war a nekk koo xam ne nit ñi jox nañ ko bopp ba pare nangul ko moo tax ah ñu jàpp ne euh, euh, loolu di cérémonie d'investiture bi dañ ko war a def ci maanaam yamale waaye dañ ko war a def ci anam yoo xamante ne nii kooku dinañ xam ne kiy respecté état de droit la waaye ki respecté suñu ay institution la waaye tamit dina gis am gis-gis bu soree sori ngir suñu ëllëgu réew mbokk yi président Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne parti bi mu bokk di Pastef ñi naan ex Pastef dañu ko investiroon balaa dara di xew te ba ñu koy investir maanaam ba ñu koy tànn mu doon suñu candidat moom képp moo nekkoon candidat keneen yëkkatiwul loxoom waaye yamuñu ci loolu ndax ngir bëgg mu nekk candidat boo xamante ni lépp dafay jaar yoon te mu nekk candidat boo xamante ne ni am na légitimité dañu wax kuréel gi nga xam ne moom mooy ARP di haute autorité de régulation du partie ku ñuy wax euh, monsieur Ngouda Mboup di constitutionnaliste jiite ko ñu defal ñu benn investiture boo xamante ne nii day suivre les textes du parti ah bi ñu ko defee consulter mbooleem responsable du parti yi la ca doon xaar dañ cee gis lu ko ëpp ndax lu ëpp junni ak juróom benni téeméer ak juróom benni responsable lu parti bi ñëpp dañu ne d'accord nañu ngir président Ousmane Sonko doon mbër ci élection yii di ñëw di 2024 résultat yooyu nag nga xam ne am nañ ko mu koy woon lool lool suñu njort moo doon wane ne kii di président Ousmane Sonko wax dëgg yàlla lu koy teree nekk candidat yàlla sàkk ko ci mim réew bañ ginnaaw ba ñu ko defee candidat waaye senegal yi defal ko seen bopp candidat dama bëggoon rek wax ñaar fukk ak juróom-ñeent kuréeli politique yi nga xam ne ñoom ñoo décidé balaa dara xew ndax biir nañu ne ay fukki fukki kuréelu politique dinañ ñëw balaa yàgg dara ñoom ñoom ñoo xaatim lii wax ne tànn nañu kii di président Ousmane Sonko mu doon seen mbër ci jongante yi ñu dëjmal mi le 25 février 2024 ñu mën cee jiital kuréel gu ñuy wax mouvement pour une citoyenneté engagé àndu nawle bi nga xam ne Euh, comme dañ fi am ay titre yu bees kii di Mamadou Lamine Diante di ex candidat moom moo ko jiite am na kuréel gu ñuy wax ànd sàmm sama réew ànd sama réew muy ANSAR ku ñuy wax Momar Ndiaye moo ko jiite am na mouvement pour la renaissance républicaine di m 2 kii ñuy wax Ousseynou Faye moom moo ko jiite am na manko ci dëgg nga xam ne El Hadji Cissé moo ko jiite am na APJS ñu koy wax alliance patriotique pour la justice et la solidarité nga xam ne Ousmane Diouf moo ko jiite am na force citoyenne bi nga xam ne la Lyon Maimouna Bousso moo ko jiite Sénégal en tête Sénégal ca kanam euh, Mouhamadou Moustapha Mbaba Guirassy yoonu askan wi doyen Madiaye Mbodj mouvement de la réforme pour le développement social di MRDS nga xam ne Mohamed Sall moo fi taxawoon léegi nii di wax bokk ci ñi ko jiite ànd ceeg Bara Diouf euh, coalition le peuple l'homme du peuple nga xam ne moom mooy dàmbooj jiite ko moom dafa muus nag mu tànn coalition le peuple maanaam moom dafa jël askan wi yëpp ne moom mooy daf ko def coalition mooy coalition am waaw dafa mbong lool macha allah ah Sénégal na fa di ah, maître Mamay Diokou am na tamit cadre de réflexion pour un développement intégral nga xam ne professeur Amidou Dat moo ko jiite am na front national bu wuuteeg front national bi ñu xam nga xam ne Ali moo ko jiite am na RPS di maître Abdinar Ndiaye am na UFD Union pour le fédéralisme et la démocratie bu professeur docteur Mohamed Tete Diédhiou am na wareef wi nga xam ne Seydou Guissé Sall moo ko jiite am na bii nga xamante ne nii mooy paas nga xam ne paas nga xam ne euh, Serigne Gueye moo ko jiite parti conservateur du Sénégal bu euh, Aliou Cissé ñoom grand mouvement citoyen nga xam ne Njaga Njaay la moom tey sax mu ngi amal foofu benn événement bu am solo bëggoon ñu teew ci waaye ni mu fa demee la am na euh, farlu nga xam ne baaraloo jot sa réew di un allié de première heure bu Serigne Bassirou Mbacké union des force patriotiques bu mètre ma soxna Kane waaye ci biir dafa am aussi comme ex Pastef dafa am dafa am ay ex candidat te mën nañ ci lim kii di Birame Souleye Diop bokk ci candidat yi nga xam ne dañoo renoncé ngir jàppale candidature président Ousmane ko am na gi guy comme guy lañ koy wooye guy Marius Sagna di ex candidat am na Abbas Fall di ex candidat beneen ex candidat bi moom jarul lim waa El Malick lañ koy wax mais ci ñi nga xam ne signataire daf ci am koo xam ne mu mënu ci woon ñàkk bokk muy le mandataire de l'année wala du siècle ñu koy wax euh, tonton Ayib <laughs> ñii mooy ñi nga xamante ne nii officiellement dañoo taxawal coalition bi di Sonko président 2024 désigné kii di président Ousmane Sonko mu nekk euh, seen mbër ci jongante yii di ñëw te ngeen xam ni président Ousmane Sonko comme ni ko euh, euh, article 1 bi waxee fii ci li nga xam ne moom mooy PV bi mooy monsieur Ousmane Sonko mi nga xam ne mi ngi judd ci 15 juillet 1974 ca Thiès nekk sénégalais xaqan amul beneen nationalité waaye tamit euh, nekk ki nga xam ne mu ngi am ay àq ak yeleefam dara manqué wu ci moom la ñu déclaré officiellement candidat ci euh, élection yi ñu dëjmal ah lii nga xam ne mooy euh, këyit bi nga xam ne tënk nañu ko mooy mandargaal investiture bi ah dinañ ko dëxañ ci benn PV boo xamante ne ni candidat yépp a koy signé su ko defee dinañ ko tas ba ñëpp gis ko donc mbokk yi tey ci bés bi mujj ci atum 2023 31 décembre 2023 ah ci lañu ñëw ngir fësal leen lii nga xam ne mooy mandargaal ne président Ousmane Sonko ginnaaw ba mu matalee lépp li ñu ko laaj incha allahu rabbi dina dem ci élection yi euh, te am nañu yaqin ne bu ci demee premier tour mu làbbali gaa yi sànni karawaas bi donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, di leen jaajëfal bu baax baax jërë ngeen jëf merci euh, jërëjëf El Malick Ndiaye ci kàddu yi nga xam ni biral na ko mu di texte bi nga xam ni moo di tabb kii di le candidat euh, Ousmane Sonko candidat de la coalition Sonko président 2024 mu ñëw ci wàllu wolof bi dañuy dugg ci euh, wàllu français bi ànd ko ak ki nga xam ni moo di euh, monsieur Moustapha Mbaba Guirassy jiite parti bi nga xam ni moo di Sénégal en tête donc ñu koy woo ngir mu ñëw def parti français bi. chers concitoyens, chers patriotes, je commencerai déjà par euh, souhaiter au peuple sénégalais un nouvel an de 2024 tout simplement merveilleux. Une année faite de paix, faite de bonheur, une année pour le Sénégal, un Sénégal de prospérité, une année pour un envol du Sénégal, et plus jamais que le Sénégal ne vive ce qu'il a connu ces dernières années. Chers compatriotes, il s'agit surtout de parler de notre responsabilité en tant que citoyen. Le Sénégal a vécu, vécu des moments extrêmement difficiles. Et nous sommes un peuple de croyants, musulmans comme chrétiens. Quand on pose la question du qui, le quoi, le comment, Généralement, nous avons les bonnes réponses. Mais le pourquoi des choses, souvent nous sommes déconnectés à cette grande réalité. Pourquoi Et il est important dans la marche d'une nation, de temps en temps, de s'arrêter et de se poser cette grande question du sens des choses. Et là, je me reconnecte à la grande question de la responsabilité, notre responsabilité. La vérité ne peut pas être une vérité exclusive. Elle ne peut être qu'essentielle. Ce n'est pas la vérité de l'opposition, la vérité de la majorité. La vérité, c'est la vérité pour tout le monde. Et parlant de notre responsabilité, parlant des acteurs politiques que nous sommes, lorsqu'on considère la souffrance de la jeunesse, lorsqu'on considère la souffrance de ceux qui vivent dans les périphéries. Lorsqu'on considère la souffrance des étudiants, l'immigration, j'en passe, il est tout simplement important à partir de là de se poser cette grande question du pourquoi et surtout de notre responsabilité, le sens de la responsabilité. Chers compatriotes, ce qui se passe est tout simplement grave. Et quand on cesse de vivre cette empathie avec ceux qui souffrent, on cesse de donner du sens à la politique. L'injustice a pris des proportions démesurées. L'état de notre démocratie est arrivé à un niveau extrêmement bas en Afrique et dans le monde. Et si nous devons continuer ainsi, au-delà de ces élections ou de cette élection, ce qui attend le Sénégal n'augure rien de bon. Chers compatriotes, en revenant encore une fois sur cette grande question de la responsabilité, nous sommes tous interpellés. L'heure est grave, comme on dit, Et le contexte actuel appelle chacun de nous, la responsabilité de chacun de nous, un engagement extrêmement profond, une solidarité, une mobilisation pour sauver la nation, sauver le pays. Toutes les choses sont appelées à disparaître sauf la face d'Allah. Et en tant que croyant, je dois donner simplement un sens à ma vie et à notre vie. J'aime bien quand je parle de politique. Je refuse d'enfermer la politique dans une sphère tout simplement de sachants, de politiciens, encore une fois, en la déconnectant de l'essentiel. Je suis, je viens d'un peuple de croyants. Nous devons accompagner ceux qui souffrent. Nous devons transformer notre nation. Nous devons aider les jeunes. Nous devons mettre en avant l'éducation. Nous devons mettre en avant la démocratie, ce qui a permis au Sénégal d'arriver là où il est en ce moment. Ce qui a permis au Sénégal d'amener le président actuel à la tête de ce pays. Si nous devons perdre ce legs, chers compatriotes, cela appelle de nous, de chacun de nous, un sursaut, une remobilisation et encore une fois que ce ne soit pas une affaire exclusive de l'opposition, encore moins d'une coalition. Lorsque Moussa alayhi salam, a été appelé sur la vallée de Toua, c'était pour recevoir une mission extrêmement importante et qui ressemble étrangement à celle-là que nous tous, nous assumons, nous devons assumer. Quand Dieu lui dit, Moussa va vers Pharaona parce qu'il a outrepassé les limites. Je pense qu'il y a une étrange ressemblance entre cette mission-là qui nous est confiée et particulièrement confiée à notre camarade le président Ousmane Sonko. Parce que nous avons en face de nous quelqu'un qui a outrepassé les limites. Mais la mission est la même. Ce n'était pas une mission pour aller prier, pour faire du chapelet. C'était une mission pour libérer un peuple qui souffrait, où il n'y avait plus de démocratie, où il y avait de l'injustice. Je le rappelle parce que nous sommes un peuple croyant. Il faut bien comprendre et remettre les choses dans leur contexte, l'ancrage qu'il faut. pour donner la puissance à nous, ce que nous sommes en train de dire. Il ne s'agit pas simplement d'élections pour élire un président, il s'agit encore une fois d'une nation, d'un peuple et de la transformation donc sociale de ce pays-là. La responsabilité est tellement importante, encore une fois, que nous devons, nous politiques et le peuple qui nous suit en ce moment, au moment de, ce, de cette investiture, considérer la gravité la situation, considérer l'importance de l'engagement de chaque citoyen, de chaque citoyen, en faire une affaire personnelle, en faire une affaire de vie, un combat de vie. Et c'est pour cette raison que 29 formations politiques, libres dans leurs libres dans leur façon de penser, se sont retrouvés pour investir ce jour-ci quelqu'un de très spécial, le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko, parce que Il est le symbole de la résistance. Le président Ousmane Sonko, parce qu'il est le président de la résilience et le symbole plutôt de la résilience. Le président Ousmane Sonko, parce que c'est le symbole du don de soi. Il a été comme... Euh, une IRM, une radiographie pour le peuple sénégalais pendant trois ans. Et durant ces trois années d'épreuve, nous avons pu voir, toucher, palper et constater en fait partout où nous sommes malades. La justice, l'exécutif, le Parlement, les régulateurs sociaux, une partie de la société civile. Aujourd'hui, nous savons d'où nous sommes malades et nous devons cela à Ousmane Sonko. Donc nous, membres de la coalition Sonko Président 2024, nous avons l'insigne honneur de porter aujourd'hui de notre frère, de notre camarade, le président Ousmane Sonko. Si nous la portée de l'acte, il faut reconnaître que la charge symbolique est encore plus forte avec une portée hautement historique dépassant largement nos frontières. Il nous faut ainsi assumer l'exaltante et redoutable tâche d'investir un grand leader panafricain, un digne fils du Sénégal, un grand patriote convaincu qui est symbole de l'éveil et du réveil et de l'envol du phénix africain. nous avons nommé le président Ousmane Sonko. Nous voudrions le faire avec force, avec fidélité, honnêteté, sincérité, mais surtout par devoir de loyauté, dans le combat patriotique pour un Sénégal debout, meilleur et prospère. Nous le faisons aussi à la mémoire de tous les soldats du patriotisme, de la démocratie et des libertés, à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, tous ceux qui ont été privés de liberté, parce qu'il défendait aussi des libertés. Nous en appelons au sens la responsabilité de tous pour que leur sacrifice ne soit jamais oublié. À leurs familles, leurs parents, nous transmettons nos pensées, nos prières et notre gratitude. La seule véritable reconnaissance que nous pouvons leur rendre, c'est de libérer le Sénégal du joug des fossoyeurs de la République. c'est de libérer le Sénégal du joug des autocrates, des autoritaires. La seule façon de leur être reconnaissant, c'est d'aller dans le sens d'une véritable mobilisation pour une construction d'un état de droit respectueux des libertés et garantissant une bonne gouvernance démocratique. Considérant que l'investiture officielle d'un candidat par une coalition de partis politiques constitue une démarche démocratique et cela la simple lecture des la Constitution et du Code électoral, considérant qu'en vertu des articles 4 et 29 la Constitution et L121 du Code électoral, l'investiture officielle d'un candidat à l'élection présidentielle par une coalition de partis politiques est une des options préalables et pour être candidat à la présidence de considérant que le prix de la procédure d'investiture du président Ousmane Sonko tient au principe de légitimité et de l'égalité, et ce dans un contexte de discrédit et de déliquescence de l'état de droit et des institutions, voire plus largement de l'action publique, considérant que la cérémonie d'investiture du président Ousmane Sonko présente une spécificité qui découle d'une aspiration profonde du peuple sénégalais, mais aussi d'un véritable exercice de démocratie interne aux formations politiques et citoyennes initiatrices de cette cérémonie. Considérant que la cérémonie d'investiture du président Ousmane Sonko est une marque attentive ou d'attention plutôt solennelle à tous les courants démocratiques, représentatifs, participatifs, délibératifs, directs, semi-directs et d'opinion. Considérant que cette cérémonie d'investiture du candidat de la coalition Sonko président Ousmane Sonko trouve son origine dans le processus d'investiture effectué par les Patriotes le 13 juillet 2023, qui avait réuni au total 1606 suffrages valablement exprimés par l'ensemble des votants au niveau des différentes coordinations départementales la diaspora, considérant les résultats obtenus dépassent toutes les espérances, avec tous les votes en faveur du candidat Ousmane Sonko couronnant le succès inéluctable du leader des Patriotes, Considérant qu'il y a dès de constater que la candidature du président Ousmane Sonko a reçu définitivement dans l'esprit et le cœur des Sénégalais et dans le paysage politique une adhésion commune et massive, considérant que 29 formations politiques présentes, et je commencerai par l'Union des forces patriotiques, l'UFP, de Maître Massokhna Kane, Parmi ces 29, le cadre de réflexion pour un développement intégral du professeur Ahmed Oudat et l'Alliance des patriotes pour la justice et la solidarité de Ousmane Tchouf. Le mouvement pour une citoyenneté engagée Andou Naoulé de Mamadou Lamine Dianté, ex-candidat, And Sam Réoumi, euh, Sam Réoumi Ansar de Momar Ndiaye, le mouvement pour la renaissance républicaine M2R de Ousseynou Faye Manko ci dëgg de El Hadj Cissé Force citoyenne de Maïmouna Bousso Sénégal en tête de Moustapha Guirassi ex-candidat Yoonu Askan Wi Madieye Mbodj Mouvement de la réforme pour le développement social MRDS de Bara la coalition Le Peuple de mon cher ami Dambot, Sénégal Nafa de maître Mamaye Djokou, le Front National de Ali le RPS de maître Abdi Ndiaye, l'UFD, Union pour le fédéralisme et la démocratie de Dr Mohamed Tete Djedjou, Waref Foui de Seydou Guissé Le PAS, le Parti africain pour la souveraineté et la solidarité de Serigne Gueye, le Parti conservateur du Sénégal Alioune Cissé, le grand mouvement citoyen GMC de Ndiaga Ndiaye, Farlou de Bara Lo, Jot Sa Réew de Bassirou Mbacké, Ayib Daffé, mandataire ex-candidat, Guy Marius ex-candidat, Il y a de ex, hein? El Malik Ndiaye, ex-candidat. Et Biram Souley, Diop, ex, <laughs> donc ex-candidat. Ils ont tous, tous ces partis, toutes ces formations politiques, ont officiellement mis en place la coalition président, son coprésident 2024. Et tous ces partis, tous ces le président Ousmane Sonko comme candidat, non seulement à la dite, pour la dite coalition, mais candidat à l'élection présidentielle de 2024. Il déclare ses partis. Il déclare ses partis. Article 1. Monsieur Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974 à Thiès, exclusivement de nationalité sénégalaise, jouissant intégralement de ses droits civils et politiques, est officiellement investi et déclaré candidat de la coalition Sonko président 2024 à l'élection présidentielle du 27. Merci. Et l'article 2, la présente déclaration d'investiture sera consignée dans un PV signé par les membres de la coalition et publié partout où besoin sera. Mais Chers compatriotes, je ne peux pas terminer cette allocution sans m'adresser au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est un pouvoir. Il ne peut pas aller au-delà de la justice du peuple. le Conseil constitutionnel ne peut pas être plus juste que le peuple. Le Conseil constitutionnel a le redoutable devoir, la redoutable charge de rééquilibrer les pouvoirs. Le Conseil constitutionnel a la redoutable mission de ramener la paix dans ce pays. le Conseil constitutionnel a la redoutable mission de redorer le blason de la justice. Je disais tout à l'heure, et la conscience historique, elle est importante. Il y a des juges qui ne sont plus. Il a des présidents qui ne sont plus. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont plus de ce monde. Mais la conscience historique, c'est poser des actes qui pénètrent le futur. C'est poser des actes qui sont durables, qui sont éternels, qui transforment, qui rendent heureux, même après votre vie. Le Conseil constitutionnel a ce redoutable devoir. Il n'a pas le droit de mettre une vérité exclusive, fut-elle celle d'un président en exercice. au-dessus de la vérité de tout un peuple. Le Conseil constitutionnel ne peut pas fouler du pied les décisions de justice qui ont rétabli le droit et dans des conditions, dans un contexte extrêmement difficile, mais le droit a été dit. La justice s'est relevée au nom de la dignité du peuple, redonnée au peuple sénégalais toute sa dignité et toute sa fierté. La justice nous a permis de revivre ces moments. Et ce Conseil constitutionnel, nous attendons cela encore du Conseil constitutionnel, jusque le droit soit dit. L'avenir dépend de ce Conseil constitutionnel. La paix dépend, dépend de la décision du Conseil constitutionnel. On ne peut menacer une institution judiciaire, loin de moi cette idée. mais je me réserve le droit de dire ce que je pense être mon droit et ma part de vérité. Et ma part de vérité, c'est que le droit a été dit. Ma part de vérité, c'est qu'une joute électorale sans le président Ousmane Sonko rendrait illégitime pour cinq ans encore tout autre président qui serait installé. une joute électorale sans la participation du président Ousmane Sonko voudrait tout simplement dire que le processus électoral est vicié et que le peuple peut se réserver le droit de refuser tout scrutin, tout résultat qui serait issu de ce vote-là si le président Ousmane Sonko n'était pas candidat. J'ai du respect pour nos institutions. Et très sérieusement, très sincèrement, je respecte ma justice. Je sais que le droit sera dit. Je sais que le droit sera dit. Et je sais qu'à la tête de cette institution, ils sont des Sénégalais comme nous. Les mêmes valeurs de dignité, de jump. Les mêmes valeurs de croyants. Et je sais qu'ils pensent à la postérité. Le droit sera dit et Ousmane Sonko sera candidat. jërëjëf suñu euh, frère suñu camarade Moustapha baba Guirassy ci kàddu yi nga xam ni biral na ko ci nasaraan ñëw ci texte d'investiture bi waaye amati solo